salaam j'espère que yéen ñëpp yéen a ngi si jàmm alors je pense que ce qui s'est passé hier ñun ñëpp gis nañ ko ñun ñëpp euh, déglu nañ le gouvernement seen sortie bu démb bi nga xam ne dañ ko defoon pour defal ñu état des lieux euh, wax situation Sénégal fu mu toll et je pense que ñu bëri si ñun comprendre nañ aujourd'hui euh, lan moo waral yenn affaire yi même bu fekkee ne ñenn ñi par manque de bienveillance dinañ continuer di wax lu leen neex man je pense que rapport FMI bi génn récemment euh, xëy na ñi ñi ñi ñi nga xam ne duñu réfléchir vraiment ñoo ko mënul comprendre mais ñi nga xam ne peut-être dañuy gëstu xam li nga xam ne nii moom moo euh, moom moo xew si dëkk bi xam nañ lu tax rapport boobu génn ak li mu ci wax lan moo ko waral et je pense que démb point bi ñu def wax ci situation wu Sénégal financièrement je pense que ça explique énormément de choses Euh, mais benn jàngat lañ ci war a am mooy euh, yàlla rek moo ñu suturaal ba euh, finalement Sénégal ñu changé ay dirigeants parce que man je me demande tey bu fekkoon ni ñi fi nekkoon ñoo fi nekk ba tey fu ñu jëm et puis l'autre chose mooy tu vas te demander te poser la question à savoir ñi fi nekkoon est-ce que nit gëm nañ yàlla waxuma sax ndax jullit lañ est-ce que gëm nañ yàlla parce que man li ma comprendre lul mooy comment des gens qui ont cette posture, qui ont le pouvoir, qui ont la possibilité de faire du bien, on choisir de faire des choses yi nga xam ne ça rend pas service au Sénégal te ñoom ñooñu de pourtant ñoom ñoo doon wax que ni Sénégal moo leen ñor ba mu jaral leen ñu rey ay doomu jàmbur ci ay émeute nit ñi tiire nit ay bal am ñu disparaître am ñoo xam jaare fa kenn xamul si lu ñu nekk am ñoo xam jëlee si blessure yoo xam ne dootul. dootul dootul dootul euh, dootul dëñ ba faw faw faw ma bëgg laaj aussi nan la nit mënee jël mille huit cent milliards si turu Sénégal ba pare genre je veux dire nga jël mille huit cent milliards ci turu Sénégal te déclaré woo ko pire six cent cinquante millions ñoo disparaître yoo xam ne kenn xamul fan la jaar te six cent cinquante millions yooyu ci prêt FMI bi la bokkoon nga xam 2024 lañ ko waroon utiliser gars yi utiliser nañ ko 2023 te xamuñu fu mu jaar man je me demande comment une personne une seule personne peut prendre toute ça la responsabilité de faire ce genre de choses c'est incroyable et euh, après li ma gën a metti mooy y aura encore des gens yuy ñëw fii di wax que ni Ousmane Sonko wala gouvernement bi lu ñu wax du dëgg <laughs> guys à un moment donné il faut il faut que ñu déggoo ci benn kàddu moom dafa ñëw publiquement mu wax que ni Sénégal gars yi détourné nañ xaalisu Sénégal et que Sénégal jóge na ci 3000 milliards ba 15000 664 milliards de dettes waaw léegi c'est facile bu fekkee ñoom defuñu lool c'est très facile ils n'ont qu'à juste ñoom seen bopp ñu génn juste ci médias yi ils peuvent sortir comme ñoom Ousmane Sonko lu ñu def nii ils peuvent venir ñu convoquer la télé bu ñu convoquer la télé ñu wax ñu wax ñu lan la Ousmane Sonko wax ak gouvernement am te du dëgg te su paree ñoom nañu ko justifier comme ñii ni ñu nekk di def xam la lay bañ ces malhonnêtes là ñëwaat dañu bëgg rey ak ay non c'est de la politique nana nii nana naa et à partir de maintenant je pense que l'appel a été clair il faut que nous en tant que Sénégalais qu'on sache qu'il y a un état des lieux boo xam ne nii il faut qu'on se rende à l'évidence état su amul xaalis mënul liggéey wala boog liggéeyam du yomb et je pense que le gouvernement a donné rendez-vous le 7 octobre pour wax ñu fan la jëm ak Sénégal avec ses moyens et que heureusement que la justice a pris la main sur ces dossiers et nous espérons que avec bienveillance avec intégrité et avec respect des droits humains dinañ ko topp ba ku nekk ci ñoom li nga laale ci xaalisu Sénégal bi ñu détourné def ci lu leen saf ak koo mën ci doon di nga ko di nga ko fay et li ma si li ma li ma li ma ce qui m'a brisé le cœur hier c'est que au moment où les autorités étaient en train de faire un point avec le Sénégal l'autre président l'autre là il est entré au même moment de poster que dañ kaa nommé xawma lan ça veut dire que moom ba tey mi ngi resté dans sa posture de kokkali sénégalais yi mais yàlla moo ko ëpp doole foofu te lu dul dëgg du yàgg il ne pensait pas que un de ces quatre vérité bi dina génn parce que ku mën a nëbb état wu lëmm nga leb ci turam 18 millions sénégalais nga leb seen turu 1800 milliards yoo xam déclaré woo ko fenn kooku mën na lu nekk mais nag demain fera jour te yàlla lu mu décider mu jeex dafay jeex maa ngi xaar ba ces soi-disant opposants et puis may fàttali sénégalais yi ñu ngi dem ci législative bu leen fàtte ñi ñi def coalition nii bu bees ci ñoom au moins au moins am na ci trois wala quatre ñoo xam ne situation bi Sénégal nekkee ñoom ñoo leen ko teg te coalition boobu ñi ñi nekkul woon ñu seen yoon nekkul woon ci loolu te dem mën a coaliser ak ñooñu je vous demande juste de vous poser la question est-ce que ces personnes qui viennent juste de coaliser fi jógee lépp suñu tur quinze mille cinq cent soixante quatre milliards est-ce que ñooñu noonu mérité nañ ñu jox leen Sénégal c'est-à-dire ñoom ils savent que ñi ñu dem coaliser ñoom ñoo mettre Sénégal dans ce chaos mais ils sont partis coaliser et puis on se demande c'est quoi leur intérêt finalement est-ce que l'intérêt est général je ne pense pas mais ça je vous laisse le soin ku nekk ci ñun xool ci sa bopp lan nga ci yaakaar yàlla nañu yàlla àtteeg ñu sàcc xaalisu Sénégal pour seen plaisir personnel ak seen njaboot. nan ngay sàccee alalu 18 millions de sénégalais di ko jox sa njaboot yàlla baax na législative yi nañ ko waajal ku nekk nga dem joxe sa opinion mais en tout cas cette situation la du Sénégal et décevante et j'espère vraiment que sénégalais dinañ si prendre conscience et une un dernier appel guys ngir yàlla diversion bi gars yi di def ci télé bi 900000 yi ñu nekk di wax ku nekk di ko def comédie il faut pas en faire une comédie après il faut relativiser je suis d'accord mais c'est très grave et tant que ñun ñi ngi nangu ñu ñuy divertir dëgg bi ñu war a xam duñu ko xam te Sénégal dafa soxla actuellement des des âmes conscientes qui comprennent ce qui se passe et qui auront leur mot à dire nañu nañu bañ ñu ñuy divertir la stratégie de diversion a commencé et vous allez voir léegi kenn dootu ci wax bu ñu ko nangu parce que am nañ xel nag te yeewu nañ fi mu toll nii nekk leen si jàmm bu